yëg nañ ndaje mi nga xam ne moom moo amoon démb fële ci sphère ministérielle bu Diamniadio nga xam ne nguuru Sénégal moo ko organisé tuddee ko conseil interministériel pour préparer la rentrée 2023 2024 ñu nekkoon na ko wutal weneenu tur loolu du tur wi ndax jàpp nañ ne tey mënoo def conseil interministériel dans le secteur de l'éducation pour préparer rentrée des classes ba pare woowoo syndicat yi ëpp lim muy syndicat wu moyen secondaire ñu jàpp ne ay tappale la ay caaxaan la li koy findeel sax mooy fukki dogal ak juróom-ñett yi nga xam ne moo fa tukkee boo ko méngalee day niroo ak fukki dogal ak juróom-ñett yi ñu jëloon daaw te amul benn solo maanaam amul genn jëmmal guñ koy jëmmal ñu jàpp ne loolu day wane ne rek bu syndicat wu moyen secondaire yi toogoon ci table ba daañ dégg dëgg ndax dinañ xam ne ñun li ñu yitteel tey yitteel acteur u secteur éducation bi du caaxaan yooyu waaye ay poñ yu am solo la jëm ci li ñuy wax tey maanaam euh, nekkinu décisionnaire yi ñu war a soppi ndax ñooñu sonn nañ bokk na ci loolu tamit tàggat gu nu war a tàggat jàngalekat yi fële ca FASTEF ñu xool ne boobu ba léegi mu ngi xaar ñu boole ci tamit lu jëm ci wàllu tey li ñuy wax les questions d'ordre sociale loolu yëpp muy passé social boo xam ne bii ay déggoo la ñu xaatimoo na nguur gi te jëmmalu ko ñu jàpp ne loolu poñ bu am solo la te moo jiitu ci li ñu war a matale ñoom ñu toftal ci nag lu jëm ci wàllu alam gi ndax xam nañ ne jàng ak jàngale buñ koy wax te lekkool yi génn ci nawet am na liggéey yu bëri yu am solo yu ñu war a def ngir école yooyu mën a nekk ci état bu xale yi mën fa dem surtout nag ñu jële fi li ñuy wax ay jàngukaayu négandiku yi nga xam ne xam nañ ne am na lu ëpp juróomi junniy jàngukaayu négandiku te ñëpp xam nañ ne bu nawet bi jeexee loolu kenn mënu cee jàng nga boole ci nag ñàkk gu ay jàngalekat ñàkk ci mim réew ba nga xam ne tey boo xoolee sax si yenn euh, localité yi liy njëkk indi yëngu-yëngal mooy ñàkk gu ay jàngalekat ñàkk mooy pousse élèves yi ñu génn ba commencé yëglu seen bopp kon ñu jàpp ne loolu yëpp ci lañ doon xaar nguur gi waaye ñoom bëgguñu dégg-dëgg bëgguñu def dëgg moo tax ñu profiter def conseil interministériel ngir mën a am jot parce que comme si année électorale la ñu jëm ñoom li ñu bëgg mooy tàmbale dem battre campagne alors que jàpp nañ ne sax beneen dogal bu am solo bu ñu waroon indi bokk na ci féexal jàngalekat yooyu nga xam ne tey ñu ngi leen jàpp arbitrairement tëj leen ci kaso yi alors que dañu bëgg ñun ñëpp ñu ne ñu am école tijjite l'école bu dal kon xel doon na nangu ñu bàyyi leen ñoom féexal leen ndax seen place du kaso bi waaye école ba la. syndicat yi nga xam ne ñoo ëpp lim te nekk ci moyen secondaire jàpp nañ ne ndaje mi ni mu demee ak ni ñu ko doon xaare bokkul liñ fa waxtaane ak ñun li ñu bëggoon ñu waxtaane bokkul dinañ jël suñu ay responsabilité ndax waxoon tañ waxtaanoon nañ ak nguur gi ne ko bi ñu fi gréwee daaw ñu dajeeg ñoom le 13 juin. ne leen li ñu bëggoon mooy gannaaw dañu nekk ci année eh, préélectorale jëm ci année électorale nañu profité ci bër bi nga xam ne la ñu jëm ngir jëmmal lépp lu jëm ci wàllu maanaam déggoo yi ñu xaatimoon ndax bu école tijjee ñu mën a dem ci l'école bu dal loolu defuñu ko leneen li nga xam ne ay engagement lu ñu jëlante woon ak ñoom yépp jëmmaluñ ko déjà comité de suivi des accords rek bi nga xam ne moom mooy kuréel gi war a daje di xayma jëmmal gu ñuy jëmmal déggoo yi ñu xaatimoon dajewul te amoon nañ rendez-vous ak ñoom ci septembre kon day wane rek ne ku ndóbin rey sama boo gisee lu ñuul da ngay daw kon ñoom ñu ngi ci li ñu mëne li ñu mëne mooy di wëndeel nit ñi di leen wax yu amul ak seen conseil yi lu dul jeex yooyu du dox moo tax ñu jàpp ne ren daa ñu jël suñu ay responsabilité bu école tijjee yëglu wan ne lii di xew nii bëgguñu mu indi ay njeexital ci école bi di ko lompoñal moo tax daañu yëglu yëglu bu teel pour wane ñun naka lañ gisee mbir yi ak lu ñuy xaar ci nguur gi. li ma mën a wax ci jëm ci wàllu année scolaire bii di ñëw mooy lënt-lënt bu ci mën a am nguuru senegal moo ko sooke li ko waral mooy naka ngay xaatime ay déggoo naka ngay seqe école boobu ak yeneen acteur seq ko ak ay syndicats yu fi ëpp lim ba pare bëgg di ko doxal. te doo déglu seen xalaat doo waxtaan ak ñoom kon ñàkk waxtaan boobu wone na déjà que ne ñoom jëmmaluñu école bi ba pare li nga xam ne en terme de priorité et de dépense dañ koy jël bàyyi ko fële suufal école bi ñàkkal ko solo di ko def ci yeneen secteur ñu jàpp ne comme ñoom école bi jaralu leen dara ñun école bi jaral nañu lépp kon lu ñu gis rek ñu xam ne ah foofu la mën a toll parce que nag ñun du ñu seetaan nguuru Sénégal mu yàq école Sénégal